Je suis le professeur euh, Oumar Ndoye, professeur en médecine à l'UCAD de, de, Dakar. Euh, pour les intimes, euh, on m'appelle Papis, Papis Ndoye. Donc, euh, je suis le, également le président du conseil d'administration PCA du FONGIP et conseiller municipal et conseil départemental. Donc ici à Thiès. lu ma indi fii du lu sample ñun waa cees lañu cees lañu xam Thiès lañu Thiès moo ñu forgé Thiès moo tax ñu nekk li ñu doon tey ji donc euh, comme ni ma ko yàgg defee ci santé parce que ñi ñi foofu lañ ma gën a xamee ci constation gratuite jàng naa ba dellu si nekk professeur u médecine Euh, donc ñu ànd ak waa hôpital de Dantec waa euh, les médecins les professeurs y compris même les étudiants dañu ànd ak ñoom parce que le concept des consultations gratuites bi ñëpp di wax consultation gratuite dama ne dama ne le CHU mobile su ñuy dem dañuy yóbbaale suñu ay étudiants parce que suñuy consulter dans les euh, populations dañ leen di jàngalaat ci même approche boobu moom lañ ñëwee fii parce que politique politique encore une fois politique bu noble ñëpp mu nekk su fekkente ne moo la tax a jóg y la matière en dehors de la santé bi nga xam ne mooy sama euh, métier dëgg dëgg dëgg man ak euh, je suis euh, acteur sport la ci sport laa juddoo parce que li taxoon li tax ma ne sport moo defar dafa amoon kuréel bu ñuy wax bu suñu papa doyen Jodiop tuddee sport étude c'est-à-dire soo demee suñ demee sa classe soo amul moyenne quinze de football te te damay wax sax ne que équipe boobu defe naa ne tey ba tey de nit ñi dañ koy tudd li may wax ni su xëy na ku mel ni Ablaye Diaw reporter su ko déggee dina xam mbaal muy wax parce que suñu marché moo ko daan couvrir ba ñu nag ba ñu wax les académiciens de Thiès tey tey jàmbaar ngeen fekkee yéen yéen jàmbaar ngeen fekkee ay déeri biram ndaw mais Thiès moo jëkk a am école de football sport étude man mii nekk naa ci capitaine pendant au moins cinq ans bi may am bac maa ngi football teg Thiès étudiant club am bac dem enseigner euh, enchaîner avec le Dakar Université Club joué fa ba pare te def deux à trois ans au Jaraaf euh, nekk médecin équipe nationale donc je suis un pur produit du mouvement associatif. moom am euh, njëriñam defe ne kenn dootu ko laam kenn dootu ko laam defe naa ne impact bi bi jiitu bi nga xam ne nit ñi dañ ci d'accordoon yëpp mooy santé ah sport ak santé man mii di médecin du sport malade soo soo ñëwee seet si ma su ma xoolee ba xam ne wér nga sa yaram attan na ko li ma lay jëkk a conseillé quel que soit sa maladie dama lay jëkk laaj ndax yaa ngi sport soo nee déedéet man la jéem ko def parce que def sport du daw rek le sport doit être déj adapté dédié waaw ku ci ku ne mënu ma def sport dafa fekk euh, xooluñu la ba wax la ban sport nga war a def waaw donc euh, lii tey ñu def si dañu ñëw d'abord pour delloo ñun ndaw ñii li nga xam ne seen maam yi moom lañ def ñun parce que ñoom ñoo ñu toppatoo doon ñu tàggat maa ngi fàttaliku bi ñu dee xale yu ndaw yi lañ ñu jëloon en charge di ñu encadré lii may def dama koy delloo dañ ma ko dañ ma ko daan defal solal ma mayo di ma jële fii di ma yóbbu Dakar may football Demba Diop ñu ma indiwaat ba tey ji ma doon li ma doon nii ba dugg équipe nationale nekk médecin donc bi ma ñëwee ne man foofu sax peut-être euh, dama ci insé bu baax véritable politique sportive c'est une politique à partir du sport le sport comme levier de développement parce que nit ñi c'est bien boo man sama xol raay raay mi ngi ci Thiès FC ngi ci damay euh, suñu gagné damay kontaan lu ma lu ma ci mën dama ko ciy def mais tey jii ku bëgg a développer sport dëgg dëgg dëgg il faut aller la base gis ni école di mooñe xale ni école euh, ak daara di mooñe xale ba ñu nekk euh, élite loolu laa fa loolu la la ñu fas yéene def ko ci xale yu ndaw yi accompagner leen mooñ leen ba pare nag éduquer parce que defe naa ne président bi wax lu ko léegi li ci ëpp solo ci école bi Euh, njàng mi la man ki ma ciy gën a naw ci xale yi ñi ma ciy gën a intéressé mooy ñiy jàng di football parce que looloo tax ma approché leen. dëggu Thiès mouvement bu bu ñu taxawal la depuis depuis à peine deux ans euh, dañuy toog ay groupe politiciens ñoo xam ne bokkuñu parti ah parti yëpp a ngi ci pratiquement mais aussi ñi ci ëpp ay citoyens yoo xam ne mosuñu def politique lañu comme kii ma taxawal nii di. gàllaajo bu baax qui est un haut cadre euh, vraiment ci benn structure pétrole donc euh, ak des amis comme ça ak kërata euh, président bi haut cadre Sénélec wàcc sëpp xam nañ donc ñoom poli li ñuy wax politique ñun bi ñuy bi ñuy nga xam ne dañ koy def ñu xam ñu ci ñoom kenn mosu leen ci gis ñoom laa àndal ak donc ñeneen nga xam ne ñu ñoo doon ànd politique ñu formé benn ñu dajaloo benn mbooloo bu dëgër parce que Thiès boobu dañ ne il faut ñu seet par quel moyen dañuy mën a développer Thiès donc ci biir ëllëgu Thiès expertise yëpp a ngi si expertise yëpp a ngi si euh, quand le sport quand tu la santé euh, l' environnement amul gisuma benn domaine de compétence boo xam ne amuñu ci ay kàngam yoo xam ne xam naa bu baax fi ñuy liggéey te ko ci interroger ci domaine boobu euh, dina ki donc loolu moo motivé ñu créé Ëllëgu Thiès. lan mooy seen objectif justement par rapport à gestion municipale obje euh, objectif bi bi euh, bi ñu koy créé il y a deux ans c'était pour vraiment Thiès parce que ku xam Thiès il y a vingt cinq ans xool léegi Thiès sa yaram dafay daw bon ñoom tamit ñu xool ko ne nañ jóg euh, kii wala dara mais kuy kuy yëngatu ñoom ci seen bopp wax nañ ko ba tey Papis pour quoi nga nekk ci man maa ngi ci mairie bi depuis depuis deux mandats. waaw ànd ceeg euh, Idrissa Yankhoba Diattara donc euh, yore coopération internationale donc yàgg naa ci euh, municipalité ñoom ñu ci bari nekkuñ ci mais bés bu ñu xalaatee ne dañ ko war a wuti dañ koy wuti parce que aussi defe naa ne loolu ambi légitimité dépassé wul nga ne dama bëgg a nekk maire pour defar sama ko loolu moom légitimité légitimité loolu dama koy rafetlu parce que xam naa ministre bi bu baax a baax a baax parce que man je fais partie du collectif des médecins de l'équipe nationale euh, ànd nañu fu nekk compétition bu nekk jëlee naa jëlee jëlee naa euh, jóge nañu bitim réew équipe nationale ba tàyyi mu teeru suñu euh, le ministre Matar Ba c'est un frère li mu wax dañ koy rafetlu te foofu sax dinaa ci profito féliciter mon frère Euh, Augustin Senghor le président de la fédération pour nomination bi euh, comme euh, CAF comme vice-président mais ministre bi li mu wax ku mës a dund sport ku xam luy sport ku yëg yëg xam dëgg sport xam ne sport public bi public moo yore kii sensation yi waaw man pour la petite anecdote suñu daan football bii stade la Dior bii dañ daan nekk ci suuf ci souterrain bi di laajte ndax stade bi fees na stade bi daan fees del donc c' est heureux aujourd'hui ñu wax ko mais loolu aussi man sama beneen kooku casquette sport bi la mais damay interpeller euh, le public aussi parce que euh, ubbi nañ stade yi du euh, li ci ëpp solo mooy il faut respecter les mesures barrières waaw parce que li tax ñu du ko lan la mooy comme ni ñuy allégé rek ñuy président desserré kii bi couvre-feu yëpp loolu yëpp parce que wax nañ ko xam nañ ko waxee ci olof euh, nañu dund ak euh, virus bi waaw loolu moom moo moo fi am mais na nit ñi dund ak virus bi ak xel mooy respecte les mesures barrières encore une fois ñu may ñu bañ fi toogaat kenn ñaanu ko yàlla ba ay muy amaat troisième vague wala dara parce que ñëpp xam nañ ne que vraiment euh, sport ambiance ko yor ambiance publique moo koy indi voilà. asalaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi leen di gërëm. di leen sant seen taxawaay fii muy parent wu jour yëpp muy ñi nga xam ne aussi ay invité lañu ñu ñëw fii fekk suñu man nag damay wax ci turu d'abord école de football Lucien Préra Lucien Préra dafa nekk symbole ci ñun moo tax ñu tudde ko école de football bi ah ki nga xam mooy coach bi nag ñu koy wax bii Kane Sarr ñëpp xam ko ci football defe naa ni Thiès moom football na fépp ba dem football ci équipe yu mag yi nga xam ne ni ñoo nekk Sénégal ak aussi jot a génn sur le plan international man maay président wu école de football bi bi ñu toogee ñu waxtaan ñu rafetlu lool tudde suñu centre bi Lucien Préra kii nag mooy côté football bi mais am na yeneen aussi activités yu ñu war a développer ci école de football bi mais danañ ci ñëw incha allah après léegi nag euh, man aussi ma bokk ci benn mouvement mouvement bi ñu koy wax ëllëgu Thiès ëllëgu Thiès nag ki ko jiitee mooy président Omar Papis ndoy professeur Omar Papis Ndoye moom mooy président mouvement bi bi ñu toogee ñu waxtaan man ma bokk ci mouvement boobu ci kuréel boobu ba pare wëlbatiku nekk président wu équipe de football bi moom mu xam na ni bu defee investissement ci équipe bi loolu lu am solo la. parce que léegi mu ni kon donc moom jàppale ñu dina ci sawar ñu àndandoo pour ñëw seet si équipe bi tey pour jox leen benn ay dons de maillot ak de ballon. jox nañ leen quatre-vingts maillot maillot y compris culotte de football ñu jox leen également dix ballons yoo xam ne ni pour les petits ak dix ballons pour les grands léegi ndaje bi moom li ko waral mooy ñun waa coalition waa mouvement ëllëgu Thiès dañuy dañuy dañuy participer ci développement yëpp danañ participer ci construction école parce que Somme tabax nañ fa benn classe ah danañ participer également ci ñu gis fenn foo xam ne ne muy jàkk wala juma buñ ñu sollicité ci affaire ay zinc wala ay tuile danañ ci def aussi luñ ci mën ba ci également aussi bu fekkante ni dañ ko bëgg a dale quoi euh, mouvement bi dina jëkk dugal ci loxoom moo tax ci biir loolu aussi comme ñun toujours Thiès moo ñu ñor équipe bi bu ñu sollicité day jaadu ñu nit ñu indi ci liñ ci mën te lii c'est une première parce que bëgg nañu ak ñoom ñu egg ak ñoom faneen foo xam ne ni defe naa président dina ko wax lu mel ni ay jeu de mayo yoo xam ne ni moom la ñuy defe ji ay compétition lu mel ni ay blouson ak lu mel ni également ay classe yoo xam ne ni dañ fay jàngal xale yi parce que ñun bëgguñu rek xale yi di football dañu bëgg ñuy football di ko boole ak jàng man daal suma kàddu bëgguma ci. waa école de football bi xale yi ci jël yëpp <coughs> dañuy jàng ci école yi. moo xam école privée la moo xam école état la publique mais dañu leen wax ni leen ku ci amut not bu baax du ñun duñ la accepter suñu école de football mais également li ñu bëgg aussi mooy bu ñu paree ci jeux yii ñu jéem a xool fenn foo xam ne ni dañ leen koy luyeel et au besoin ñu dem ba mën a tabax dara pour xale yi aussi ñu wital leen ay professeurs ak ay instructeurs yoo xam dañuy renforcer seen niveau ñun loolu la ñu jëkk quoi maanaam daal développé daal vraiment cees ci commencé ko ci xale yi ma wàllum football ak wàllum jàng. Euh, ci joueurs yi waa pour le moment quatre-vingts la ñu recruté gum ci xale yi waa quatre-vingts moom xam nga déjà bëri na bon moyen daaj bi léegi dafa am li ñuy wax ay pipi am na également ay minime am na ay benjamin loolu am na ci équipe de football bi danañ dem également je ci ay cadets waaw léegi daal c'est ay catégorie la. moyenne daaj bi am na ñoo xam ne ni tey ñu ngi am huit ans les pupilles am na ñoo xam tey tey dem nañ tey tey ba 17 quinze 15 à 17 ans ñooñu pour le moment lañ fi amagum comme équipe. ñun waaw loolu de lañu ñu moom loolu rek moo ñu yëkkati ñuy participer à la réussite aussi bien ñu fekk si leen ci li ñu bëgg muy football ñu xool ñi nga xam ne am nañu ay talent caché ñu jëm ko génne ñu gën leen ci jàppale mais en même temps aussi njàng aussi ñu gën ko. farataal parce que njàngum école bi moom bokk na ci li nga xam ne ni moom jiital nañ ko ci lépp moo tax ma ni la lii côté football la rek bu ñu wane mais ñun dañ leen a bëgg a gunge ci ay classes yoo xam aussi dañ koy def huit fu ñu leen di jàngal pour aussi ñu am réussite ci école bi en tout cas daal ku amul moyen doo bokk ci équipe bi doo bokk ci.